d'abord comme comme Birame euh, l'a dit. La perche plutôt, ils ont tendu la perche. avant de, de justement un lien. c'est euh, ils ont tendu la perche. Sëñ Saliou ñëpp ràññee nañu Sëñ Saliou journaliste. mais même j'ai entendu hier euh, un journaliste mu ragal a wax Sëñ Saliou. même le Guèye c'est un journaliste il a dit c'est un analyste. c'est bizarre moi euh, ça m'a ça m'a fait tiquer amul amul benn werante que mhm. euh, moom il exerce la fonction de journaliste depuis plus de vingt ans. tout à fait c'est extraordinaire. Mhm. Sénégal juge mun Salif kii euh, euh, Serigne Saliou def na usurpation de fonction c'est c'est extraordinaire qu'un juge l'ait pu l'écrire ba mu àgg ci Serigne Saliou ça pour moi je trouve c'est une absurdité extraordinaire mm. il le fait depuis vingt ans actuellement c'est le directeur de publication d'un journal qui est lu kooku argument usurpation de fonction ça ne tient pas par rapport à la loi si les directeur de publication laajuñu diplôme ñu nga nekk euh, économiste c'est c'est une autorité morale da ngay dem nga déclarer ko ci ministère de l'intérieur il y a une déclaration que tu dois faire il des conditions qu'on fixe pour aider, pour assurer ta fonction de directeur de publication c'est légal mais kooku mënoo ko opposer usurpation de fonction mais deuxièmement maintenant sur le li nga waxoon démb il faut revenir sur ça cest dire que euh, il faut pas que ñu dal ci piège mais normalement ku nekk ci journal et presse écrite wala rajo wala télévision su dee yaa ngi xëy kër gi daf la war a jox carte de presse de la maison c'est le premier réflexe on ne doit pas laisser un personnel sans identité mm-hmm. je pense que mesure boobu il faut que quand même les syndicats et le, le la la commission la ñu jël décision boobu c'est képp ki nga xam ne da ngay xëy ci kër presque nañ la jox carte. Hmm. mais c'est un problème de sécurité pour le pour les journalistes. Hmm. booy dugg ci kër ñu xam ne nga wane sa carte pour wane ne que yow fii ngay liggéey. c'est c'est la moindre des choses la carte de la maison mais suñu waxee par exemple cette euh, cette TV mais qui ne connaît pas Maïmouna. waaw. Maïmouna elle est DG. elle donne l'autorité morale à quelqu'un pour dire que kii ci suma personnel la bokk mhm. mais ça protège Maïmouna sa protège son personnel tout à fait ça ça protège même l'État mmh. donc pour man c'est la première mesure c'est-à-dire que nga nekk journaliste xaw ma fan nga nekk rajo télé animateur ñëpp képp kuy liggéey ci maison de presse dañ la war a jox carte mmh. carte de la maison c'est une carte de presse reconnue par l'État parce que a par exemple je répète son exemple elle a déclaré Sa société existe, elle est légale, elle fonctionne, elle reconnue. donc may man su jëlee responsabilité morale pour ne kii ban maa ko jox carte bi mais la police ne peut pas ne peut pas priver un personnel pour accéder à une information moom mënu ko cest à muy ku yore photographe bi ku yore caméra bi ku yore euh, plume am wala keneen kii ki nga laminam di il a droit à pour accéder à l'information publique. Mmh. Pour moi, c'est c'est ce premier problème qu'il faut régler.